nekaayu groupe Futur Média dañu koy dooree ak euh, l'observateur l'observateur tey euh, mu dellu si waat rek ci application pardon bi soxal euh, mesure yu conseil inter interministériel yi mu ne le virage de tous les dangers noo ne la ko dikkee loo ko duppee mu ñëw nag ci ab choc entre le gouvernement et des transporteurs maanaam l'autorité de l'État itam en jeu ndax léeg-léeg ñu gis daal nguur gi jëli dogal waaye ñoom it dañ cay Euh, Fanta Siro da ciy am menace de paralysie du transport et augmentation du tarif maanaam dem ak dikk bi euh, mën naa gën a tagga tembe ba noppi itam Euh, ñenn euh, ci euh, njëg yi ñu yokk ko jaaykatu pneu yi moom xam ngeen ne jëlees nañ ab dogal muy pneu d'occasion yu jógee biti réew kon mooy tuwulee mën nañ faa jaaree naax saay seenam njaay fii ci réew mi nekk nag fi mu ne ni daal am nañu ay jiixi jaaxa Mansour Faye bi ñu denk wàllu dem ak dikk moom def na espèce waxtaan max interview éclair la ko dippee mu ne nag daal confrontation Euh, du am leneen itam loo xam ne euh, gis nañ ko ci euh, yéenekaay bi muy ba tey accident bu 6 kilos ñu ne ñaari boroom woto yu mag yooyu waral mbir mi daal fi mu ne dañ leen teg loxo lu ci ma am loolu dakk ma nga ak am xewee foofee fa mbir ma amee détournement de fond itam wax nañ ko mu soxal Peacock Investment ñu ne nag ki nga xam ne mooy comptable ba daal moom tibbut dafa rek daal di siif waaw waa bale ndax benn ci milliard euh, nee ñu daal la la ne foqet ca kees ga loolu la yenekaay bi wax Tambacounda itam ñu ne benn soxna moom dafa rek daal di euh, jël doom mi wujjam euh, daal di koy soode tëj ko ca dossier ba noppi itam rek daal di gàll lépp ci ndoddu jinne yi Euh, leneen itam mu soxal euh, mbiram justice ak euh, pan di Pape Alé am na liberté provisoire naka noonu Cheikh Oumar Diagne ak Karim Xurum Xaq leneen itam muy aju ci wàllu people ak ay Ba mi joué rôle Salma ci série Salma moom itam yéenekaay bi wala bokk suñu naataango yu yéenekaay bi su ma jumulee Maria Dominica la page 11 waxtaan nañu ak moom mille CHAN 2023 Laye Sarr moom ma ngay coaché sunu gaynde yi aywa Malick ñu jeexalee ak record waaw boo jógee ci Laye Sarr moom da ngay daal di tàbbi rek ci euh, record mu ñëw ci Sadio Mané mi ngeen gis noonu mu ngay liggéey liggéey bu tar ngir dellusiwaat am nañu yaakaar ni contre Paris Saint-Germain ñaancoo dina euh, footballaat mu dem ci mbirum course ak wàññi poids ndax boo toogee lu yàgg compétiro dangay ngay daal di jël poids ñu ñëw ci France Ligue 1 18e journée Bamba Dieng moom day mel na ni moom mooy guidé Olympique de Marseille ndax gis nañu bërki démb jël na ko Guèye muy Pape Guèye temps de jeu bi encore euh, comme axe gauche moom tam ñu ngi koy xalaat déplacement crucial Jacobs ak Crépin ñu nga jëm ca Lorient Euh, CHAN 2023 bi Ablaye Sarr doon wax léegi euh, ñoom nag jóge nañu fa nga xam ni moo di euh, Tabarka Lions yi locaux yi ñëw nañu démb ca anaba ñu ñëw ci wàllu Papa Alioune Ndiaye Dimir Sport Turquie ce que je pense de l'équipe nationale moom tamit pan la tudd mi ngi xalaat mm. équipe nationale mm. ndax def na fi jaloor ji am solo ci milieu terrain bi ci wàllu bëre le tigre de Fass écarte Lac 2 mu mel ni que daal Gris Bordeaux pare na pour Boy Niang numéro 2 ak Modou Lo waaye Lac 2 buggul daje ak moom. jërëjëf. Euh, na toog ba wér. na toog ba wér pengu. incha allah wéral pengu soog a dellusi. bu mu forcé Paris Saint-Germain bu mu forcé PSG. Hmm. jërëjëf euh, Malick léegi léegi ñu dem ci Oumy Samb ak dernier point météo.